maanaam loolu sëriñ bi ñuy wax ne ci xaatimatul munaajaati la nekk mooy kataballahu tabaraka wa taala anna baytallahi alxaraami tarfaahu almalaikatu ila tuuba loolu man dama jàpp ni xam nga sëriñ tuuba gi ma ngi ko tuddee tuuba ga ca àjjana waaw te it bi waxul ni yëkkati nañu ko dañu tarfaaw daañu ko yëkkati ila Touba tam la wax néewul Touba Mbàkke loolu nag man dama jàpp ne dafa jamtal Touba ga ca àjjana rek moom la wax ji jamtal maanaam malaayika yi bu àddunay tukki daal bis penc balaa taxaw malaaka yi daañu yëkkati kaaba ga yóbbu ko Touba googee ca àjjana man daal ci sama déggin moom noonu laa ko déggee waxi wàllu yi nag bàyyi ni mu wax noonu la mooy seeni wax moom kenn mënu ko firi ndaxit wax ji mën naa jamtal tuuba mën naa jamtal tuuba ga ca àjjana te am na benn boroom xam-xam bu moom dafa daan wax ni tuuba ga ca àjjana lañ ci nam waaw kon loolu mën naa jamtal la ca toppit mooy comme xamuñu wax ji dëggantaan te wax ji nekkul wax joo xam ni Eh, jëfandikoowul ci seexa yi mu jëfandikoo seexatul mudaariya moom la jëfandikoo seexatul mudaariya nag la muy tegtale mooy luy jublu si luy am waaye loo xam amagul ndax luy am ca mujjug jamono la walla déet loolu lépp ay laaj la yuñ ci war a laaj ak ndax ci ca àjjana lañ ci jublu loolu lépp waaye moom jëfandikoowul néewul rufiat dane tarfaaw tarfawuhu la wax dana ko yëkkati ila tuuba waxuli tuuba mbàkke dañu tuuba rek ndax tuuba ga ca àjjana la walla déet ndax mujj jamono la mbir mi xewe wallahu aalam man daal loolu laa ci euh, loolu moom euh, daanaka jàpp naa ni wax jooju ku ko bëgg a bëgg wax ni tamit euh, tawaaf la dañoo war aj màkka Tuubaa wala euh, murit yi dañuy aj fii ci màkka dañuy aj murit yi duñu màkka loolu moom du wax ju nekk ndax euh, sëriñ Tuubaa ci boppam yónnee nañu ajal ko màkka sëriñ bi ci boppam yónnee nañu ajal ko màkka te itam doomam yi aji nañu màkka ku ci ajiwul ku nekk yónni nga ku la ajal Cheikh Modou Fadal gis nga bi Serigne Touba jógee 1928 la aji Makka ànd ak sëñ Mbàkke Buso ak maam Cheikh Anta Gaawaan ak mbooloo mu bari te booba la fi Serigne bi doora bàyyi ko noonu nga ko waxee Cheikh Abdoul Khadir Mbàkke dem na aji Makka Touba mosuñoo deñ sëti sëñ Touba yi ñu ci bari dem nañ Makka waaw daanaka ñi ci demul Makka bariwul donte duñ leen wooyee sax turu àllaaji waaye bari na sax koo ci yaakaar ni demul màkka fekk na ku teel dem aji màkka la ay alaaji baara nga xam ni aji na màkka ay yoon yu baree baree bare kon loolu moom bëgg a jàppe tuubaa ni euh, dañuy ñëw di aj seeg loolu moom waxi naq sa xandang rek la te it yi nga xam ni dafa am ci jamonoy sëriñ bi ba léegi ñi ngi xeex ngir yàq yoon wi yàq pas-pasu nit ñi euh, loolu lub yooyu ñoom ñoo jiite loolu la ca toppit mooy bari na lu ñuy def loo xam li ko yokk muy li ñuy wax encouragement li leen ko defal mooy daanukat yi ak gaa yi waxtaan te bëgg seen poos fees ci sëriñ bi ñooñu tamit bari na nag ay pas yu yàq yoo xam ni ñu baree bari seen pas-pas na te mu ngi jógee ci waxtaankat yooyu nga xam ni ay diiwaankat lañu nga xam ne lu leen neex rek dañ koy wax ci sëñ Touba duñ ko feet ndax li ñuy wax dëppoo naag wax sëñ Touba wala dëppoo naag alxuraan wala dëppoo naag sunna yonent bi déedéet bàyyi diw nee na nangam sëriñ bi bis dajale na bis sàngam nee na sëriñ diw nangam nit ñi yuuxaloo daanu jox na seen xaalis ñooñu itam nag bari na pas-pas yu yàqu yoo xam ci seen waaraate yooyu la la jógee loolu tam faaw ñu nangu ko sëriñ bi bind na ay téere yu bari yoo xam ni buntub aj daf koy leeral euh, wax faratay aj màkk mooy lan sunna ya ñaata la xemmem loo ko ndax euh, boo demee ci tasud shubaan la yaakaar naa ci lay wax faraidul xajji ladayhim arbau fa niyatul ula ala ma yushrau mu ni faraidul xajji faratay aj màkka ladayhim fa ñoom boroom xam-xam ya arbau ñeent la fanniyatu al ula maanaam ba ca jiitu mooy yéene te mooy lixraam alaama ca la nga xam yusrax yoonal nañ ko ci lixraam nañ ko war a defe ca miixa yuñ ko war a defee ak nañ ko war a defee muy miixatu zamani ak miixa al makaani yépp mu ne summa tawaafu topp nag tawaaf tawaaful if lil ifaadati mooy ponki ak tawaaful ifaada la te mooy suñu eh, ujaaj bi demee Makka ba noppi ba def armalam ñëw ca Kaaba ga def tawaaful qudduum daw Safa ak Marwaam ginnaaw ga mu dem Arafa jóge fa dem Musdalifa jóge fa dem Minam nag ca bisu tabaski ga mu dem def tawaaful ifaada kooku ponk la sëriñ bi mu ni aadu di nanga ko lim saaniyatan muy ponk ñaareel laxaañeel aj makka alal mu'tamad ca lañu sukkandiku ñetteelu aj makka mu ni wa saayu naa sunug dox bay na diggante safa wal marwa dox diggante safa ak marwa safa ak marwa nekkul tuuba makka la nekk kon dox diggante safa ak marwa saalisatan mooy ñetteel ba laxun na ñeel leen doona mbir ya ci lu amul werante bu ñeenteel mu ni summa topp al wuquufu taxaw fasmahoo déglu leen bi araf ca arafa waaw taxaw moom nee na ca arafa lañ koy def arafa ca màkk la nekk raabiatul arbaay mooy ponkum ñeenteel ruumoo na ngeen sàkku ji nag maarifa ak xam na ngeen wuti xam-xam ndax yii yëpp ñàkk jàng rek ko indi yii nga gis daanukat yi di ko def ak di ko réyal ñàkk a jàng rek waaye sëriñ bi moom la ko war lépp def na ko sunnay aj sunnanuhu indahu musna ashar fi qawli man bi ilmi fiqihim qaddara fa arbaun min alada lixraami yafcaluha sol xajji saa saa itmaami noonu la limee sunnay aj xemmem loo nit ki tamit ci aji màkka mu ne alxajju yuxrijul fata min aljunub jumlatiha wa min baqiyatil uyub Tuuba nee dem aji makka ca baytillahi alxaram aj googee nee na yuxriju day génne alfata camsa min assunub ci bàkkar nee képp ku jóge fii dem makka moo xam senegal nga jóge Mali nga jóge Pakistan nga jóge Yemen nga jóge dem makka aji nee daf lay génne ci ay bàkkaar jumlatiha mboolem bàkkaar yépp wa min baqiyatil uyub ak mboolem ayibi xol da koy dindi aj màkk mu ne laakin gaa lii nag li xayr xaqi muslimin ci lu dul nga yóbbaale àqi ab julit wa xayri faiti salaatin yantami ci lu dul ngay faat genn julli waaye su ba ngay aji màkka danga ngaa yóbbaale àqi nit ñi wala nga faat ay waxtu nee na loolu moom du tax aj googe génne la ci bàkkaar mu ni misluhuma kafaratun xad wajabat min ramadana aw zihaarin xad sabat ni nga xamee ni waroo yóbbaale benn àq julit waroo faat benn waxtu kazalika bul yóbbaale kafaara gu waroon ci ramadaan ci weeru koor bul yóbbaale it kafaara gu waroon ci sihaar xat sabat sax loolu ñu jàng fiq dañ la mën a waxal kafaara ci ramadan lu sabab ak kafaara ci yaar lu koy waral sëriñ wax ni la wa jaa anna kulla yasdu min umratin li umratin mukaffarun dikk na ci xadis yonent bi alayhi salaatu salaam wane ni yasduru bu gongeeku bu jógee ci mukaffarun bàkkaar boobu dañ koy jéggile min umratin li umratin aj diggante umra gu nekk ak moroomam day jéggile bàkkaar yi fa nekk loolu xadis bu leer la boo demee ca buluxul maraam euh, di nga fekk xadis boobu muy xadis boo xam ne bu leer la wa xajjatun mabruratun laysa jasalaha siwa aljannati fi ma ubrisa Sëriñ Tuubaa na wa xajjatun aj makka mabruratun gu ñu nangu laysa déet jasaa payga laa ñeel ko siwal jannati lu dul ajjana sëriñ bi dani boo jógee fi dem makka aji te ñu nangu aj ga duñ sag pay mooy ajjana fii ma ubri saa ci liñ wa hiya alladi lam yakku fiha masamun xajjul mabruur sëriñ Tuubaa nee na mooy aj goo ni bàkkaar amu mu ni tafsiruhu zanbun la daa alimu masam buñ ko waxee mu ne mooy bàkkaar mu ne waqiila bal mabruratun maanaha maqbulatun riwayatan suqnaha waxiila ñu ni ban li fi nekk mabruratun xajjun mabrur buñ ko waxee mooy xajjun maqbula aj guñ nangu mu ni loolu ñëw na ci beneen riwaaya wahiya lati lam yakku fiha min kalaam ma annahu at'ama fiha min taam noonu la ko toppee ba leeral lan mooy aj màkka lan mooy ponki aj lan mooy sunnay aj lan mooy tuyaabay aj màkka ma ne buñ sonal nit ñi daanukat yi liñ bëgg saxal loolu munta sax ndax sëriñ Touba dafa taxaw layool boppam nekk boppam nekk avocat boppam lépp lu ko waay saxalal ci yoonam wii waxi sëriñ tuuba lañuy ñuy jël dajjee ko loola waaw bépp pas bu bon bu ñu bëgg a saxal boroom xam-xam yi nekk ci yoon wi incha daa daañu jël wax sëriñ Tuuba dajjee ko pas boobe boobee sëriñ bi dafa wax ni awalu waajibin ala almuridi tahsilu zaadihi min altawxidi nee na awalu waajibin li njëkk a war ala almuridi ci képp kuy woote boppam ni murid la te mooy ki namm jëm ci yàlla la njëkk a war ci mooy taxsilu zaadi yi am ab yóbbal mi ne tawxid ci tawxid jullit dafa war a njëkk a wéral ak gëmam tawxid lii lépp ñàkk tawxid rekk ko indi ak dégg waxi daanukat yi waaw dégg waxi daanukat nee na sëriñ bi nee li nga war a njëkk a def mooy ngay wut tawxid ndax tawxid moo lay musal ci bokkaale te bokkaale googu moo lay tàbbal safara kon sëriñ Tuubaa nee na yow murid bi li nga war a njëkk def mooy na nga soxlawoo xam-xamu tawhid wéeral sa pas-pas ci yàlla qabla istighalihi bil infiraadi bi zikri wahdahu wa bil jihaad bala ngaa soxlawoo di wéet di tudd yàlla di wéet di dajale mbooloo di wéet di wuti taalibi defaral sa pas-pas te boo ko defaree nee na muntahijan masaba ahlu sunna na nga ngëru ci ngërum ahlu sunnati wal na nga topp ngirum ahlu sunna ma al jamaati wa tilka junna ndax nee ahlu sunnati wal jamaa soo leen toppee loolu mooy pakk bi tax doo dem safara ahlu sunnati wal jamaa buñ ko waxee jublu ci ahlu sunnati wal bu bees bi nga xam ni mooy ahlu sunna wal jamaa numéro deux ba la wax numéro un ba nag mooy la saxaaba yi nekkoon ak ba agsi ci imaamul ashari yi boroom xam-xami lislaam yépp jaar ci ngir mooma ngir mooma lay wax te mooy boroom pas-pas yu rafet ya is ngir sulumaatu lëndëmi bidaati ixtiqaadi bidaa ci pas-pas te kuffu day fekk anwaara tibaayi haadi leeri topp yonent bi nee na ne pas-pasu biddaa day day day day fekk leeru topp yonent bi maanaam képp ku fas biddaa rek duutoo mën a topp yonent bi ndax pas-pasu biddaa boobu mooy tax moo lay nëbb ba too gis leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo wéralee sa gëm yàlla ba noppi nag wa baadahu ginnaaw ga nag taxsilu ma yu saxihu nga am lépp loo xam day wéral bii ci moom furuudal ay ne farasay jëmm fi ma sarafu ginnaaw ga nee na na nga yittewoo luy wéral sa faratay jëm ka tuxri lu mel ni laab wa siyaami koor wa salaati julli wa xajji baytillaahi aji néegub yàlla ba wa zakaati ak asaka soo xamee loolu ba noppi na wa baaduhu ginnaaw ga yaslu ko mu soogu in raamal wusul su fekkee day sàkku ak yegg nga gis ne kon soogu yi sax nekkul waajib waaye dani su fekkee danga koy sàkku na nga soobu ala yaday mukammilin ci ñaari loxoy sëriñ bu mat sëriñ te mën a mottale yax rasul sart ba mooy sëriñ boobee yax fu rasul nay wommat jëmi nay xeñtu yonent bi yax fu na xeñtu rasul yonent bi sëriñ boobee yaquuduhu daf koy wommat bil ilmi ci xam-xam sëriñ ba ko war a njëkk a def mooy jàngal ko xamal ko wala ibaadaat jaamu yàlla waaye sëriñ boo xam ne su ngeen àndee tam boppam rek la lay won di la won xemmeem loo àdduna di la xemmeem loo loo xam ne day day tax nga fàtte yàlla fàtte yonent bi fàtte sëriñ Tuuba booba sëriñ jël sa topp kamaayu rabbi bi tarki la aada te sëriñ bi war na ko yar ci bàyyi aaday bakkan fa man bi ma mi فمن بمهمه تصوف نزل بغير تشييع مرب قد كمل فإنه يقود في لج الردى ولا يجيء منه شيء أبدا képp ku soobu ci yoonu tasawuf te àndoog sëriñ bu gunge nee na soobu nga ci mandingum réer waaw yaa ngi soobu ci géeju alkande ndax di nga réer di nga réeral li annahu yaqulu seytaan ndax su boobaa seytaane moo lay womat wa nafsu ak bakkan wala waa bànneef kama abaan Sëriñ Tuubaa dellu wax nee na fa man yaxut baxra alxaqiqati bila fulki shariati fa xumquhun jala wa man yaxut képp koo xam ni wa man yaxut képp ku xuus baaral xaqiqati géeju xaqiqa bila fulki shariat ci ludul gée gaaluk sariya képp koo xam danga soobu ci géeju xaqiqa te waroo gaaluk sariya fa xumquhu ndofam ga anjala feeñ na képp ku bëgg ne damay jëfandikoo sariya damay jëfandikoo xaqiqa te doo jëfandikoo sariya nee na la mboolem ñi ñu fi doon topp muy nit ci char chari muy nit ci xaqiqa musuñoo bàyyi sariya musuñoo bàyyi sariya wa man yaxid an istawaari al bila dalilin waadixin lam yaslami isibu niyaati tariqi yaxsha saarin dalalan aw halaakan yuxsha kon koo xam ni dangaa fekk fa mbooloom julit ñaaw pas-pas yu baax yi ak boroom xam-xam yi fa ñu aw yoon waj aw nga bëgg faa wàcc wut waneen yoon wu sëriñ bi nee na sànkute ku réer rek ci ngay mujj moo tax ah, mbokk yi nanu defaraat sunu pas-pas yi ci yàlla nan jàngaat téere sëriñ Tuubaa yi bind ci tawxiid nan ko jàngal nit ñi te bàyyi di waxi sëriñ Tuubaa yi nga xam ni ay munaajaatam la yoo xam ni fugraasi wali yu magee sax ñu ca bari mënuñu koo firi waaw fugraasi wali yu magee sax ñu ca bari mënuñu koo firi man de am na sama sëriñ boo xam ni ku bëgg sëriñ Tuuba bokk ci ulamaa u banu daymaan mus toog ak moom ak doomam mu yore benn xasiida mu génne ci benn bayit boo xam ne sëriñ bi moo ko wax te sëriñ boobu ca jamono man maa ngi jàng ci moom te booba fóore joo xam ne daf daan wax ni ñetti mashab yii dey looma ci laaj ma tontu la muy mashabu malik mazhabu imaamu shafii mazhabu imaamu ahmad ibnu hanbal ndeysaan mu yore xasida bi di jàng ba ëgsi ci bayiti wa mu ooma ma ñëw mu ni ma ndax xam nga menn ndax xam nga maanaam yi lu ci sëriñ Tuubaa jublu ko déedéet mu ni ma ndax déggoo ci mag ñi nga daan jaxasool te ñu jële ci ñu jële sëriñ Tuubaa de lenn luñ ci wax ma ni ko déedéet te kooka ku maandu la ndax booba bu dee arab yi rek dégg na ko waaye maanaam ak la ci sëriñ bi jublu loola la doon laaj moo tax segam fugraas yi boroom xam-xamee ñoo doon lott ci fiiri waxi sëriñ bi waxi munaajaat yooyu sàkkaan nag jëmm joo xam ne yow sa nax wu rafetul jàngoo bayaan jàngoo euh, jàngoo fiq jàngoo la nga war a jàng lépp yaa ngi mën a yem rek da ngeen di nab nabi nga bëgg a firi waxi Serigne Touba loolu di nga réer di nga réeral ñeneen nañu bàyyi def Serigne Touba magasin boo xam dañ koy wute xaalis nañu waxal Serigne bi li mu wax